bu ñu jàllee ci euh, sunu musique exide dex lañ ci àndal bi ñu xëyee tey ñu ngi leen di wax ni euh, que Adjatu Fatou Guewel dafa génnee euh, way bu bees jagleel ko jigéen ñi bu ngeen seetloo saa yu ñuy célébrer jigéen Fatou Guewel daf ciy bokk way na ak mbay Dieye fay jagleel ko jigéen ñi way na ak Youssou Ndour jagleel ko jigéen ñi euh, way na jigéen ñi ba tàyyi mu woyaat leen ci 8 euh, mars bii ñu dëgmal euh, bi weer bi dugg see rek démb ci la génne lu bees li nga xamante ne Exidex techniquement wala musicalement parlant Fatou Guewel def ci génn fu fu ñu ko xamul woon ci reggae la way au départ. ndaanaan ndaanaan kulli fadrin la. ndax li muy def tamit booy xool dafa laaj gëstu. ndax boo woy ci style yëpp war ngaa mën a xool beneen style boo xam ne ni tey dana gën a laal àdduna tey boo jëlee musique reggae amul musique universelle la ba Chine dañu koy déglu donc bu ci woyee mën nañ jàpp ni message bi war na mën a interpeller ñi nga xamante ne ñoo nekk ci yeneen dëkk yi à ce que ñu dem naa di vérifier ba xam euh, lan la message yi wund donc Fat Guewel nag bu ne dellusee le mois de mars weeram la dafa jël lim moom ndax booy xool jigéen ñi dafa am ci ñoom wàllu gu rëy bu weesoo di leen bégal bu weesoo di leen wëyal dafay porter seen ay combat moo tax message yu gën a foor ah Fatick Gueye da koy ah, da koy jël di ko porter sooy xool da leen di déglu année bi yëpp bu mois de mars jotee mu def synthèse waaye leen way goo xamee nii dafay wax ak njiitu réew mi wax ak góoru àdduna pour ñu delloowaat xel ni jigéen ak góor ca xel ñoo yem waaw waaw ca xel ñoo yem waaw waaw léegi nag ñoo leen suul xel yàq ci yokk rek waaye ci xel ñoo yem donc mën nañu seetaan clip bi bu buñ ci paree dellu si gën koo faram fàccee on y va Bilal Faye exclusivité ngeen am ko démb la génn Adjot Fatou Guewel dugg studio euh, di waaja génne bande voilà album lay waaj a génne euh, mu ne balaa album bee génn nag euh, ci premier mars bi nga xam ne ñu ngi jëm 8 mars dina génne premier titre bu nar a bokk ci album boobu jagleel ko jigéen ñi ce qui veut dire que woy bi c'est parti pour mu nekkati hymne national pour les femmes du Sénégal parce que jigéen ay suñu yaay euh, am nañ ci ay rakk am nañ ci ay bàjjan am nañ ci ay tante am nañ ci ay cousine jigéen en tout cas mooy socle et que euh, lii euh, Fatou Guewel def tem ba ci façon bi mu ko woyee musique bu xew la muy reggae donc rythme la boo xamante ni ndaanaan dëgg fu ñu la mënti teg ci univers bu mu mënti doon war nga faa mën a woy te vraiment Fatou Guewel du ñu jóg ci di ko bégee parce que ndaanaan la bu kenn dootul werante man je l'appelle la diva éternelle. absolument parce que booy xool ci wàllu way. Hmm. da ci euh, innover tout le temps. sa yu génnee rek on voit euh, une nouvelle façon de chanter. rythme yu bees parce que naturel mystique bi nga xamante ne Bob Marley ko way. rythme bi dang dang. yokkal foofu oui foofu dafa reggae foofu. naturel mystique la bi dafa reggae. moytu leen. rythme bu bu naturel mystique bi mu andi. déjà boole ci percu yi kenn xamul musique la. xale yi da leen ko fecc. tubaab bi danañu ko fecc adduna danañu ko fecc waaw góor faatu ndax nag lii nag moom mooy nag waat ne jigéen lu góor def jigéen mën na ko def ndax way na ci way na ci reggae andi beneen air yu bees tout le temps et macha allah loolu tey je pense que ne fierté la et message boo xamee ni dafay delloowaat tey jigéen ca place am et eh, fii neex awa ñëwoon yokka foofu mooy fi mu bare ñëwoon fett bi yow Fatou Gueye bi dafa ëppal de. xam naa nuyu naa mbaa Ndiaye Ndiallo sama waay ba bu mu ko feccee naa yow xale bu doy waar nga fecc loo nii yow. boni boni ma télé bi kii fecc loo ma ko lii yow yokkal foofu avocat ñu demaat. yow ñoo rek ñoo rek ay waay ay waay ay waay ay et eh, puis dafa ànd ak fecc yi xew ah. a yokkoon dafa ànd ak yooyu yëpp en fait caane nag ndeg béggee fay góoram waaw saa yu waye lu neex rek papay caane fay papay caane fay papa mbay papa mbay mbay nag mooy xorom ci cin waaw ñëpp xam nañ diggante te am na xorom. te lu amul xorom day lewet. day lewet. mbay nag mooy xorom. wallaay ci cin ba mu diggee ci waay wi nga gis ne waay wi dafa am beneen beneen. kii ko jox yow ñëwaat kon nag laay laay. awa bu yàggee yaa ngi dégg. awa yaa yooyu. bu yàggee yaa ngi dégg yow way bi neex na de. loolu. laa ilaha illa awa ñu waatal yéen a ko baax na waay déet waay. ah yaa ngi tiir ma sama daal lii. ah ñu waatal tuuti rek dernier dernier bi. doy na rek meilleur. laaj bi laaj baax na awa ñu waatal. yokkal foofu. aywaay aywaay aywaay. jeex na. la yow Fatou Gueye toj na fi de ah ñëwoon ñu jeex. bii moom loolu dañuy bañ moom. ah. xaaj en direct. ñu bind la. ah jogaata. déedéet. <laughs> très belle chanson Fatou Seye di ko mën xam nga woy bi actuellement disponible na sur YouTube. dinaa ko télécharger di ko déglu sama oto di ko déglu fu ne. parce que woy bi neex na quoi en fait. woy bi la ça donne envie de danser même si thème bi c'est intéressant mais ça donne vraiment envie de danser. tendance musique c'est le grand retour de Adjaratou Fatou Guèye. dañu koy namm ndax at boo ci toogee def seen synthèse. waaye ak encore jigéen ñi mënoon naa xaar ba weer yu passé mu génne albumam uh-huh. waaye elle préfère toujours wayel jigéen ñi ba noppi soo ko nag defal parce que jigéen nag mooy lépp ah. donc ànd ci at Mbéjé Faye di way woo xam ne mën nañ ko seetaan ci YouTube ah, mën ngeen dem euh, suivre ko ci plateforme yëpp incha allah dina leen wax tamit nan ngeen def pour ko déglu euh, suñ ko dugalee en streaming et tout ça pour nekk international en tout cas waaw leen góor jigéen ñi voilà man de maa ngi xaar euh, clip bi bi élégance non li maa ngi xaar si élégance Pape Cheikh di ko xaar si africanisme bi nga xamante ni moom always loolu lay choqué choqué Chase euh, Rada euh, ndaxte euh, Fatou Gueye maa ngi fàttaliku ndeysaan sama yaay daf daan xaar Fatou Gueye su génnee clip mu ne cuub bii laa bëgg yëre bii laa bëgg yëre bii laa bëgg yeah so man maa ngi koy xaar si style yére boobu dafay nekk dafay nekk yére bi jigéen yëpp di di sol en fait waaw <laughs> ah, donc Fatou Gueye on l'aime tellement suñu yaay la suñu suñu suñu xarit la <laughs> man su ma ko gisee ak keneen sax damay fiir voilà su ma ko gisee ci beneen télé wala beneen émission wala mu toog ak beneen animateur damay fiir tellement euh, dama bokk ci moom mu bokk ci man mm-hmm. donc ajot Fatou géwél euh, génne euh, single bu bees di waaj a génnee album bande bi nag togg na ko ba pare waaye daf cee tànn benn muy li ñu wax léegi woy bi mu jagleel ko jigéen ñi reprise bi laay xaar de dernier tëb bi rek. voilà dernier tëb bi rek reprise bi rek laay xaar man Aboulaye man sama tur rek laay xaar mooy reprise woy voilà ñëwal. si yow baal yow yaay meer. waaw meer meer. waaw ñëwal. ñëwal rek ñëwal rek. nañu fay droit d'auteur. voilà. léegi noo leen tuddee noo leen tuddee noo leen ko tuddee. ah noo ko tuddee. kii rek. rek rek rek la tudd rek. rek voilà bi rek lañ ko tuddee rek. wax amul dara xewul. kon dañ ko tuddee rek. yàlla voilà mu ngoog. ñu jàll ci débat nga a jàll en boucle. Euh, ci télévision Futur Média Amina Poté nee na bu ñëwee léegi moom itam euh, dina ko ci teg bu ko defee ngeen mën a bëggee ak Fatou Gueye la bu bees li nga xamante ni euh, moom la moom lay doog a génnee. Euh, mu woy ci nag euh, euh, jabaru Cheikh Seck international bi nga xam ni nit ku baax la borom këram itam di ku baax comme on dit derrière chaque grand homme y a une grande dame mu jagleel ko mu woy ci itam xaritam Euh, ajot Mariam fay Sall ci biir woy bi sargal ko ci sargal na ci itam suñu yaay maître satu Diop ci biir woy bi euh, moom itam euh, jigéenu jàmbaar la donc jigéen des koy sargal et bi bii Fatou Guewel génneeti jagleel ko jigéen ñi mooy imm ci 8 mars bi ñuy préparé y a aussi un autre titre boo xamee ni ab xale ko woy mais mu ngi def carton bu extraordinaire Exidex guy la ko tuddee waaw kooku nag euh, mooy euh, Djeba. Euh, di xale boo xam ne nii macha allah gis nañ ne depuis que bi mu commencé yéeg wàccul. et puis gis nañu style bi nga xamante ne tamit andi na ko comme on dit lépp lu waay di def soo ko ñemee soo ko assumé da nga ci am ndam quand il a commencé je pense que ne premier bi le pour son premier single pour un début les gens se disaient bon est-ce qu'il va il va fa la jëm. mais je pense que ne tey way wii tey war na ne il est rentré dans les cœurs des Sénégalais ndax bokk na ci way yu nu gën a TikTok yu nu gën a jëlaat loola di ko challenge di way woo xamante ne 2 millions de vues en deux semaines voilà donc muy semaine bu ne 1 million donc loolu c'est c'est balaa muy am am 1 million vues exactement balaa am 7 cinquième jour bi am 1 million.